En termes de bilan, nous pouvons retenir qu'il y a eu 13 euh, euh, victimes. 7 ont été évacuées à l'hôpital Yusumbergan. Une victime a été sauvée et évacuée à l'hôpital principal de Dakar. 5 corps ont été extraits des décombres. Donc voilà la situation exacte. Donc au nom du chef de l'État, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Nous souhaitons également un prompt rétablissement euh, aux blessés. Bon, ça repose le débat aussi sur l'importance de la protection civile dans notre pays. Et c'est l'instruction du président. Nous travaillons pour la stabilisation de la stratégie nationale de protection civile qui sera très prochainement présentée en conseil présidentiel en Conseil des ministres pour que les décisions aussi urgentes et adéquates soient prises sur la question. Parallèlement aussi à cette stratégie, nous travaillons sur l'identification de tous les bâtiments en rue sur toute l'étendue du territoire national, sur l'érection de la direction de la protection civile, conformément aux instructions du chef de l'État à l'Agence euh, nationale de la protection civile. Logiquement aussi, euh, le travail nécessaire sera fait en termes d'enquête

du wuti ji lu mu yóbbu njabootam nattu yàlla dab ko bo sa dewe aljana nga jëm jixaat la li fi nek nag moy yalla tombel na ma ci mbir bi mo joge yoonu Dakar di ñew bu muy daanu samay beut ma ngoy gis ba filmer yi ci nit ñi am ba poussière ba man mako filmer

loolu doyatul dem nañu jëli ji ñi nga xamante ne nii mooy militaires yi gémi militaire bu bari ñu ñëw renforcer leen donc nag li fi nekk mooy gëm yàlla ñaanal leen ndax dogalu yàlla ala kuli xan day am waaye ñu ngi ñaan yàlla sunu borom ña fa ne yàlla na yàlla sauvé moo tax kenn ku si nekk ñun war na wax asbunallahu wal min al wakiilu wala hawla wala xawata illa bil kenn ku si war naa gëm ne ndogalu yàlla kenn mënu ko jël kenn ku si ne war na wax astafirullah wa tuuba ilayhi ñaanal ko ñi fi ne yàlla yàlla sàmm leen te sutura leen maa ngi jégalu. bilan bi ñu mun a jàppandi jamono ji may wax ak yéen mooy fukk nit ak yu am nañ ci ay jafe-jafe. fukki nit ak nit yooyu juróom-ñaari nit ñi yóbbu nañ leen hôpital bu Youssou mbergat fii ci Rufisque kenn ki yóbbu nañ ko hôpital principal génnee nañ juróomi koor yu àndul ak bakkan ci liggéey bi nga xam ñu ngi ko doon amal fii ci Rufisque ci sama tour ci turu ministre de l'intérieur wante surtout ci turu njiitu réew mi muy président Macky Sall son excellence ci turu sama naataango gouvernement bi yëpp ak kilifa yi ma àndal ñu taxaw fii muy gouverneur bu Dakar muy préfet bu Rufisque muy maire bi muy maire commune bi muy euh, kilifa yi fi nekk yëpp ñu ngi jaale njaboot yi ci am ay jafe-jafe di leen ñaanal yàlla xaare leen arjana ndax ku jóge ci conditions yi métti yi am nañu yaakaar que yàlla na nga teeru ci àddina fi daw si di ñaanal aussi ñu ci jële ay gaañu gaañu yàlla fëgg leen yëkkati leen ñu dellu seen liggéey ñuy rafetlu liggéey bi nga xam ne sapeur pompier def nañ ko fii militaires yi def ko fii FDS yëpp force de défense et sécurité def ko fii ak yeneen naataangoo yu bokk réew mi aussi def ko fii loolu mooy Sénégal benn bopp la le na ko président ñuy fàttali aussi que am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy amal président ne ñu gaaw ci lool ci wàllu protection civile liggéey nañ ko ba pare daanaka dañ ko war a jébbal euh, conseil interministériel jébbal ko président dans le cadre d'un conseil présidentiel yóbbu ko conseil des ministres ngir mën a jël ay dogalu mucc ayib ci wàllu protection civile